xam nga le taux national dafa baax ci infection à VIH parce que taux national c'est 0,5 10 personnes yo jël 6 euh, si ay jigen lañ ñom ñoo euh, ñom ñoo ñom ñoo infecté te jigen ñi buñu infecté xalé yi fa ñu infecté ndax jigen ñi ñom ñoy ëmb ñom ñoy imbi infection bobu mi ngi am sous trois niveaux au niveau de euh, la pendant la grossesse pendant l'accouchement et pendant l'allaitement ci la infection bobu di jóge ci ci yaay gi di dem ci euh, xalé bi légui nak pour ñu éviter loolu il faut femmes yi vulnérables, ñu vulnérable maanaam dix yoo jël six ci ay jigéen lañ il faut ñu xeex pour vulnérabilité des femmes yoyu face à l'infection à VIH parce que femmes tamit dañoo vulnérable ci plusieurs points déjà jigéen bi nu mu bindo aspect physiologique du jigéen bi bu loolu weesoo aspect socio-économique bi manam comme koomu jigéen ni mu xawa bawé aspect socio-culturel manam ngëm-ngëm yi nga xamné mo nek ci biir société bi motax bu ba jigéen ñi gën a aawlu te ñi bu ñu aawloo ci VIH bi xalé yi tamit ñoo ciy donc pour ñu mëna pour ñu mëna jël en charge xalé yi il faut ñu jéem éliminer transmission mère enfant bobu lool mo wundu atelier bi ñu ñu ñu ñu programmer ko def ko ak les acteurs communautaires pour réfléchir ensemble Acteur Yoyo, déjà nee y a les services en charge des enfants au niveau du ministère bu vous avez Amna ay bàjjenu gox des ay chefs religieux Amna ay chefs coutumiers ñooñu ak ñeneen ak ñeneen ñooñu ñoy les euh, porteurs de dynamique communautaire ñoy nek ci askan wi ñom ñoy mëna dem waxtaan ak leur père waxtaan ak seen famille waxtaan ak askan wi pour euh, prise en charge des enfants euh, contre le VIH ñu gën ko mën a mën a formation bi ñu ci xaar renforcement de capacité peut-être amon nañ ay formation yo xam mënu nañ permettre ñu des suñuy activité mais juste tay dañ ñëw pour renforcer waat pour mëna affronter doomu jangoro bi nga xam moy mooy sida te xale yi diko diko dundé instant yi pour di leen gën leen orienter daal dimbal leen aussi ci seen dundu xam nga tamit doomu jàngoro boobu ku koy dund da ngay vulnérable trop. dañ dinañ lay daw aussi day am xale yi di la beddi ak yooyu yooyu daal la ñu jóg pour xeex ko pour dimbali xale bi mu mun a gën a intégrer société bi mun a affronter tam dundam. ñu ngi ci en période de Covid pandémie bi euh, mu installé wu ci monde bi yëpp lii tamit prétexte la pour communauté yi seen bopp ñu mën a waxtaan ak ñoom sensibiliser leen. pour bu démé ci seen père peer démé délo ci kër ya délo ci ci askan wa mën a waxtaan ak ñañ fay pour ñu mëna respecter les mesures barrières pour ñu mëna changer de comportement mais aussi et surtout éviter la stigmatisation